أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ci buntab ñaar fukkeel ab ñeent bunt bi di jàngale leeral lenn ci wàllu njabar tey ñu ciy jël xadiisu ibnu abbas radiallahu anhu wa ardaahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man iqtabasa شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح xadis bi ñuy jël tey ci bunt bi xadisu ibnu abbas la yaakaar naa ibnu abbas jàlloon na fi ci ay dars ñu waxoon na ibnu abbas moom mooy kan su ma juumulee waxoon nañ moom ibnu abbas turam nu mu tudd abdullah la tudd abdullah ibnu abbas bu tax ñu tuddee ko ibnu abbas papa mooy abbas ibnu abbas lan la bokk ak yonent bi ibnu ammi rasulillah doomu baay taxu yonent bi la papaay yonent bi ak papaay abdallah ñoo bokk loolu moo tax ñu tuddee ko ibnu abbas moo abdullah ibnu abbas ah comme mbokk yonent bi la kon de qurayshi lay doon moom bu wér këng nekk doomu bàyyi taxu yonent bi waaye moo gënoon tuuti ci saxaaba yi kuta kiram min sigaari saxaaba radiallahu anhum daa lahu rasulullahi salaa sallam bi an yufaqihahu fi ddin wa yuallimahu tawilu tafsir yonent bi aleyhi salaam ñaanal na ko ne ko yow xale bi fëgg ci dënnam ne ko yàlla na la yàlla déggloo diine moo tax moom ibnu abbas dafa bokk ci dafa bokk ci ñeenti abdallahi al abadala waxoon naa ko keroog ñeente lañ al abadala abdullah ibnu abbas mi moom ci la bokk ah abdullah ibnu masud abdullah ibnu abbas abdullah ibnu omar ak abdullah ibnu amr ñoom ñeent lañ ñooy alabada la moo abdullah ibnu abbas yonent bi moo ko ñaanal ne ko yal na la yàlla déggloo diine xamal la firi looloo tax omar ibnu xataab ci jamonoom bu toogee rek bu xale bi ne tëll rek mu ne ko kaay toog ba lenn ci magu saxaaba yi sax fiiraange bëgg leen a dab lu tax xale bi ñu koy indi ci biir mag ñi lu waral loolu benn bis pour Omar wax leen ne xale bi kat dafa war a toog ci pénc mi fi amirul muminin di toog xale bi fa la war a toog parce que du xale kese kese kese Omar toog rek daal ne dama bëgg ku ma firil izaa jaa nasrullahi wal fatuhu ñëpp ngi toog magi saxaaba yi ne leen lu ngeen ci xam ah gars yi ne ko li ñu xam daal mooy yàlla day wax ci suura boobu su fekkee ndimbalal yàlla dikk na ah su fekkee yàlla dimbali ne leen ba ngeen ubbi mbak makk di nga gis nit ñi dugg ci diine yàlla di def ay mbooloo mbooloo su boobaa yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam na nga saxoo di sàbbal yàlla di ko sant ndax yàlla moom day jéggale yàlla mooy yërëmaakoon bi ñoom ñëpp bi leen Omar laaje ñu firi noonu ne ñoom loolu lañ ci xam ah ba mbooloo mi jeex Omar ne ko gees ne ko Abdullah ibnu Abbas loo xam ci isa jaa nasrullahi wal fatu mu ne lu njëkk li ma leen di yëgal mooy saar bi daa wàcce di tàgge yonent bi loolu mooy li njëkk balaa ñu koy firi saar bi daa wàcc di tàgge yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ñaareel bi li nu tàmm ci ay aada nit bu amee victoire lu muy def day jubile day feetu mu ne yonent bi yàlla may ko ndam ba pare ne ko dellul ci yàlla raayta nnaas yadxuluna fi diinillahi afwaja di nga gis nit ñi dugg ci diine loolu du victoire bi léegi loo war a def est-ce que jubileel fa sabbih bi hamdi rabbika dellul dugg ci ruq sant sa borom kon soo amee ndam da nga war a sant yàlla mu jàppaleen la noonu saar bi jàppaleen ko noonu jàppaleen leen ko noonu mu jàppal leen ko ba ñëpp ku nekk jàpp sa sikkim xulli say bët di ko xool bi mu paree Omar ne ah lu ngeen xam ci Abdullah ibn Abbas li mu wax gars yi na lii kay mënuñ cee yokk mënuñ cee wàññi lii la exact mu ne leen lii moo tax fu ma toog ne ko na ñëw toog waaw lii moo tax fu ma toog ne ko na ñëw toog li waral lool nag mooy yonent bi moo fëgg dënn ne yàlla yàlla na nga ko déggloo diine waaw yooyu ñaanu yonent bi nag mbokk yi du fanaan àll mu ne fastajaaba allahu yàlla day daal nay nangu daawatihi ñaanam bi mu ñaanal xale bi fa kaana xibru haadihi l umma dégg nga ñu ne moom mooy daawu xeet wi muy géeju xeet wi moom abdullah ibnu abbas ndax dégg diine wa faqihiha mooy faqih bi jàngale ci diine li ëpp ci diine ci da ngay dégg ñu ne abdullah ibnu abbas la ku ëpp ci diine ci ci moom rek ngay fekk waaye wa imaamiha ci imaamu xeet wi la bokk moom abdullah ibnu abbas ci borom tafsir kat yi la bokk néew na tafsir booy jàng ba mu jeex te gisoo ci waxu abdullah ibnu abbas solo na ay hadis aussi yu bëree bëri parce que keroog maa ngi leen doon wax ne ginnaaw abu hurayra ku ci tegu abdullah ibnu ah waxuma woon fii ba lim leen waaw tey encore ñu bëgg a waxaat ne fàtte nañ ko baax na ba sama kado yi ñëw mu ne solo na xadis yu bare bare bari moom abdullah ibnu abbas faatu na bi muy faatu walahu thalasa asharata sana thalathata asharata sana bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di faatu moom abdullah ibnu abbas mu ngi am fukki at ak ñett bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di faatu moom abdullah ibnu abbas nag faatu na atum juróom benn fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom abdullah ibnu abbas moom moo ñuy wax hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii mu ñuy jàngal tey mu ne yonent bi nee na maniqo tabasha soba képp koo xam ne jàng nga wala jël nga walla am nga lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ci xam-xamu biddiw yi yonent bi nee na yow njabarkat nga jàng nga njabar mani ko tabasa képp ku gëllitu xam ngeen gillit gillit xam ngeen ko ana wolof yi gillit xam ngeen ko ah ah waa kay yow xam nga gillet gillet mooy matt yu ñu taal ba mu tàkk ci matt yooyu ñu taal am ci bu ndaw nga dindi ko yóbbu ko fee fenn pour taal leneen wala nga niite ko leneen loolu nga yor noonu souvent sax tubaab yi dañuy def flambeau taal ko nii ci kaw jàpp ci suuf di daw loolu mooy gillet yonent bi nee na ku jël lu toll noonu hmm? suba benn xaaj min an nujumi ci biddiw yi faqad iqtasaba shubatan min asihri yow day jàng nga benn buntu njabar kooku njabarkat la waaw lu toll noonu la yonent bi wax boo ko xamee ci jéem koo xam-xamlu ci biddiw yi yow dugg nga ci njabar sa mbir yàqu na parce que njabar dafa bon njabar baaxul léegi nag loolu tamit mbokk yi duñ ko wax noonu rek mu dem mais dafa laaj leeral suñ tëjee nii bunt bi kon dina am xam-xam yu ñu perte te dafa dagan waaye tamit du ñu bàyyi bunt bi ñépp dugg ci kon tamit du baax mbirum biddéew ñaari mbir la dafa am ci wàllu biddéew yi jàng benn wàll wi day dagan am wàll woo xam ne boo ko jàngee dafa xaram ban moo dagan bismillah
bidéew bidéew yi mën mën la guider foo jëm si suuf si suuf loolu ci la bokk
orientation.
ak lan bidéew bi lay orienté.
xam nga ci science astronomie jàng étoiles yi yii dañuy daw yii di tourner yii ñoo yor seen lumière bopp ñii nangam nangam ñii dañuy orienter nit ñi ah ci wàllu weer yi ak at yi waxtu julli yi kon jàng loolu dagan na jàng wàll wu demee noonu dagan na qaala alxataabi am na benn sëriñ bu ñuy wax xataabi nee na ilmu nujum xam-xamu astronomie bi ñu tere muy xam-xamu biddéew bi ñu tere maa yadullu ala alayhi ahli tanjim mooy ñiy jàngale mbirum biddéew ci njabar léeg-léeg ñu ne diw biddéewam dafa fàq du ngeen dégg lool wala benn waaye ñëw ne la seetal ma nga ne ko xaaral ma seetal la yow sa biddiiw xaaral ma sama biddiiw man am na ñuy def loolu am ñoo xam dañuy seetlu ci wàllu biddiiw yi loolu dafa xaram am ñoo xam ne bu ñuy tukki ci biddiiw yi lañ koy xool bu ñu bëggee takk soxna ci biddiiw yi lañuy xool lu ñu bëgg a def ci biddéew lañ koy xool loolu dafa xaram waaw horoscope dafa xaram horoscope da ngay dégg ñu ne la weer bu nekk bu nekkee lii bu nekkee lii di la jéema te lu garaaw mooy jullit yu bëri tey dañuy déglu horoscope wala ñu koy jënd di ko xool di ko seet et saa nga dégg ko leen man décembre laa judd décembre luñ ci wax man janvier laa judd janvier luñ ci wax loolu dafa xaraam julli dinañ xam loolu loolu ci wàllu njabar la bokk waaw léegi li gën a doy waar mooy promotion yi nga xam ne mayeen nañ mayeen nañ ko ci rajo yi wala yenn journaliste yi nga xam ne dañoo bëgg xaalis dañuy fekk benn waay boo xamante ne ci loolu lay liggéey ñu may ko promotion jox leen vingt cinq mille rek ñu invité ko ci rajo bi wala télé bi may ko mu wax su waxee ba jeexal ñu ne ko joxeel sa numéro ndax gaa yi xam foo nekk loolu mooy diwa ngi nii da ngeen ko seet si nangam ak nangam barki démb dégg naa ci benn rajo benn waaye boo xam ne li mu wax da koy faj ay feebar daanaka dee rek la la bàyyi daanaka dee rek la bàyyi mais lépp nee na mën na ko day yokk awra day guddal fan day yokk wërsëg ma ne ah kii de léegi mu nekk yàlla bu ndaw de te xam nga nit ñi lu tax ñu dof waa joo xamante ne moom day yokk wërsëg wala dafa mën nangam ak nangam ak nangam ak nangam te mu ko defal boppam nit ñi noppalu ñu koy defal ko sa bopp da ngay may wërsëg doo pare ngay woon nit ñi kaay leen ma seetal leen ñu ngeen fay ma benn waaye da doon woote ne moom xam na lépp mu ne moom lépp la xam ku ñëw rek rek benn benn xale dégg ko rek ni kii billaay dinaa ko fenloo kii xamul dara da leen di nax ay yaayam ne ko gis nga yow ku dëgër bopp nga tàmm nga ku ñëw ci dëkk bi nga diingat ko waaye di nga xam ne kii mooy dañ dëpp gi mu ne bàyyil ma dem ñu ne ko bismillah demal mu sol ay dàllam waaxu ba ci góor gi ne koŋ koŋ koŋ góor gi ne ko kookan la mu ne ko mën a benn ngi noonu ñaareel bu mu toog mu ne ko waaw lu la fi indi mu ne ko kon kay xamoo dara mu ne ko waaw mu ne ko xamoo dara damaa ñëwoon pour ñu ma wax la ne xamoo dara jóge naa sama kër ñëw ba fii nga naan ma lu la fi indi ko soo xamoon li ma fi indi kay da nga doo ma wax da ngay ñëw rek ne ma nangam nangam mais lu la fi indi kon xamoo dara daal di jóg ay daalam daal dem yoonam ñëw na yaayam ki xon naa leen xamul dara yaayam ne ko ah nu mu demee mu ne damaa yegg si mu ne ma lu la fi indi su xamoon dara kay day day xam li ma jëlee sama kër indi ma fi nee naa leen kii da leen di nax day lekk seen xaalis loolu la Sénégal mel xamuñ dara làmb ji passé kay wan na leen ñi xamuñ dara wala wala lan la ñu waxoon ci rajo yi ñetti mbir ñu ne làmb ji du yàgg waxuñu woon loolu ñu ne ndeyjoor la ñuy daanoo waxuñu woon loolu ñu ne diw mooy daan yëpp yàlla teggi ko ñett yëpp yàlla teggi ko waaye xam nga ñun nit bu jàngulee kenn mënu koo gindi billahi lazi la ilaha illa huwa ku jàngul kenn mënu laa gindi te Sénégal ñi réer dañoo bëri ñi jàngul dañoo bëri moo tax nax leen yomb xoola waa ji nga xam ne dafa dem ba marché lal ay ay ay baas teg ci ay xarfa fuufa ah di jaay di jaay benn téeméer benn nangam benn nangam ah gisoon naa benn waay boo xam ne buy jaay téere danaan walla billahi wallahi taalahi téere bii ku ko jënd doo tàggali kook dërëm xam nga nu muy def boo ko jëndee mu ne la boo demee da nga koy ëw boo koy ëw nga boole ci dërëm billahi doo tàggali kook dërëm dégg leen lu mu wax de est-ce que waxul dëgg foo nekk yaa ngi takk téere boobu ñëw dërëm a ngi ci biir tàqalikoo nga ak dërëm léegi nag yow doo tàqalikoo ak dërëm boobu boo ci déggee foo nekk da ngay am xaalis ala nga sa bopp te xoolal beneen bi mooy dañ naan la lu yomb cent franc laa la koy cent franc xam nga yow da ngay xeeb cent franc mais imagine la deux cent personnes ku ne cent franc ñaata la loolu mën na dépasse bi marché boo dem nga génne fa deux nga génne fa vingt mille francs loolu loolu lan la mais xam nga borom cent francs yi ñoom dañuy xeeb cent francs yi loolu mooy problème mu Sénégal mooy gars yi dañuy dañuy ko xam ne man de damay seet ay dërëm laay seete dërëm non problème bi du dërëm bi muy seete après bu seetee ba pare nag ba mu ne la yow def foog ñu sang la foofu la wax ji nekk léegi nag yow xam nga waa ji gisal na la nee na gis naa mais foog ma sang la lu mu la wax nga def ko dégg nga wax bi wala ñu nekk benn groupe ah yow day mënuma laa faj mënuma ko de seetal naa la nag gis nga ba ma bëggoon lekk sa xaalis gis nga lu mu lay wax ma bëggoon lekk sa xaalis dama naan la temps la waaye mënuma laa faj yaakaar naa ne xaaral xaaral jël numéro ki mu tegal dil lay woo allo waaw waaw kilifa gi waaw man dama fi am benn malade jàpp naa ne yow yaa mën nga koo faj mu ne waaw demal ci diw boo demee bu la kooku ne 300000 di nga ko génne joxe ko parce que da ngay jàpp ne li kee wax dëgg la parce que kee du triant kee ku baax la dërëm la la seetale lekku sa xaalis. dégg ngeen wax bi loolu moo am Sénégal ay nit ñuy tel teg seen i ba ci journaliste yi ci lañ bokk ci dil bi lañ bokk parce que. ñooy ñëw benn waay di ko xool xoolal avant làmb ji am na benn rajo boo xam ne suñu defee journal ba pare da nga dégg ñu naan dee ma ko wax na ma ko de wax nañ ko ah du ma ko dee waxal waxal di jéem a woon ne loolu mooy kii wax na dëgg ñoom ñëpp yàlla fen loo leen kon mbirum biddéew doomu ndey mbokk yi di ko jàngale di jéem a wax ne yow xam nga li xew ci univers bi xam nga xew-xew yuy xem xam nga taw bi comme xoy yi xam ngeen xoy yi di ngeen di gis xoy yi bu nawet bi di waaj a jib ñu dajale benn dëkk naan fa sàngara lekk yàpp mbaam def lu leen neex ba ngoon jot ñu dëkk leen rajo yi ñu ne ren dina bëri taw kilifa dina dee nangam nangam wax lu bare bari saraxe leen deret dina tuuru def leen nii su ko defee ndeysaan ñu indi ko ci rajo yi wax ko ci télé yi jullit yu bëri gëm ko yenn yi day dem ba sax soo koy weddi dañ naan ah nañ dem nañ dem gis nga ñii ñii ñii gëmuñu nañ dem rek bàyyil képp ku gëm loolu képp ku dégg yooyu bi nga gëm ko na nga yëg ne yow génn nga ci lislaam bokkatoo na nga yëg ne yow sa pas-pas wérut na nga yëg ne yow amoo diine gis ngeen àddina bii li neex yàlla rek moo fi am lu neexul yàlla du am lépp lu neex yàlla fii ba àddina bi di fay di jeex loolu rek mooy am lépp loo xam ne yàlla programme wu ko du am su nit ñi bëggee bu nit ñi bañee yenn saa yi ma joxe ñaari élection élection Abdou Diouf Ablaye Wade yaakaar naa lu ne defoon nañ ko pour Abdou Diouf toog fi wala waaye yàlla ne déedéet du fi toog wala am na sax sëriñ yoo xam ne dañu ne woon man sama maam gis naa sama maam nee na ma Abdou Diouf mooy toog kenn ne gis naa yonent bi ñenn ñi ne dama koy branché ñii ne ñu bëri ci ay kilifa diine waaye mbir ma fu mu mujj seen de seen branchement yooyu yàlla coupé courant bi waaw seen gént yooyu ñu géntoon yàlla def ko ngelaw mu dem pour yàlla moom mooy dëgg yàlla mooy alimul xaybi wa shahaada yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamul kumpa yonent yi xamuñu kumpa xam nga yonent bi biñ ko waxee mbirum kumpa lañ wax lan la wax alquran tont qul law kuntu a'lamul xayba lastaksartu min al xayr wa ma massani suu su ma xamoon kumpa ma xam ëllëg luy xew kon man jàmm rek laay nekk ci jàmm rek ci jàmm rek wa ma masseen yesu kon lu bon duma laal waaye xoolal yonent bi dundam yépp alif ba yaa ay problème la ñaari weer la def ci biiru way juróom bu jigéen baayam gaañu mu juddu xalimatu saadiya moo ko nàmpal ca bani saad mu ñëwaat yaayam yaayam faatu mu ñëw ci maamam maamam faatu mu dem ci baayam abu taalib mu faatu xam ngeen lu tax ñii ñëpp faatu ci bi mu nekkee ndaw xam ngeen lu tax pour mu xam pour mu teel a tumaranke xam problème yi pour mu bañ a wax papa yaay maam nijaay dimbali leen ma pour mu ne rabbi rabbi sama borom sama borom xelam dootul dem ci kenn parce que ñoo ñëpp dee nañ yàlla jëlee na leen fi xadija sax soxnaam bi ko doon jàppale yàlla da ko fee jëlee pour xelam di nekk ci yàlla subhanahu wa taala ku mel noonu nag bu xamoon luy xew xam lii lépp nu muy def ah du ci ut garab du ci ab solution mais fii lu ne ngay dégg nañu rey nag bu ñuul ak léegi léegi wallahi léegi léegi bi ma jàppee ba pare balaa may takk sama montre woo nañ ma téléphone France lañ ma woowee benn waay boo xam dañ ko bëgg a jënduloo xar mu weex pour jabaram pour mu rey xar bi ndax jabaram gorom moo ko ne sama sa soxna si fokk nga yónnee ma xaalis mu utal ko fii sarax xar bu weex reyal ko loolu est-ce que diineel ah rey deret tuur deret tuur deret fenn dong la ko diina santaane mooy pour mu nekk jaamu yàlla ci ngénte wala ci céet tabaski korite ak nga am gan bëgg koo teral wala nga yow nga am xiif instation lekk yàpp jeex na amma di ko rey ngir yonent bi nee na laana allahu man zabaha li gayrillah képp ku rendi te rendi woo ko ngir yàlla loolu yàlla rëbb na ko lekk boobu sax daganul lekk hmm? am nay cant yu am ci Sénégal ak ay jàng ak ay ay luñ fa rey arab naa lekk de maa leen ko tey ndax yàlla taxu ñu rey ko ah yàlla taxu loolu ñu rey ngir cant gi kuñ ko kuñ ko sant kuñ ko ko pour kan la du pour yàlla di def innamal amal ku nekk sa yéene naa rey lii ngir kër gi ndax tabax naa ko ba pare dama fee war a toxu si kon foog ma tuur fi deret yàlla génn na ci nekkatul ngir yàlla sama oto bi dafa bees naa ci tuur deret naa indi benn xar rey ko ci kanam oto bi yàlla génn na ci ngir yàlla rek ngir yàlla rey ngir yàlla waaye bu dul yàlla yàlla pare na ci amatoo ci benn tiyaaba mbokk yi lu mel ni lii lépp dafa xaraam amma bu fekkente ne nag maa yuallimu bihi fi awqaati salaa wa jihati alqibla bu fekkee nit day jàng astronomie pour xam heure julli yi pour xam qibla bi fan la nekk pour xam ban jamono lay tàng pour xam ban jàpp comme météo ni mu koy defee léeg-léeg ñu ne waa météo dañoo xam kumpa waa météo xamuñu kumpa ci àddina bi lañ nekk dañoo jàng xam mi ngi mel ne rek cin bu ñu tëj mu tegu mu tegu ci kaw safara cin bu ñu tëj mu tegu ci kaw safara ñépp xam nañ ne ci biir benn tàngaay moo fay nekk ndox du fa nekk walla cin kese ñu ñëw di togg dafa guñ dara ci cin bi ñu teg ko ci kaw xali teg ci lépp dafa wow ci biir walla dafa tooy dayo waaye gis nga bu ñu yëkkatee kubéer gi ne ko nii da ngay gis kubéer gi ñax su ñaxee ndox commencé tuur lan moo tax ndox moomu tuuru ci nekk ci kubéer yi cin bi te nekkul ci biir cin bi parce que tàngaay ak seddaay ñoo laalante tàngaay ak seddaay saa yu ñu laalante rek ndox ñëw mooy comme li ngeen gis taw loolu kese la gis nga cin bi bi ñu ko ne ubbee nii mu ne ko nii ngelaw li bi mu laalee ci kubéer yi dafa tàng rek ndox dafa wàcc bu doon frigo la aussi soo koy ubbi nii rek ay seconde nga gis kubéer gi ndox commencé wàcc parce que foofu dafa sedd tàngaay moo ko laal fee dafa tàng sedd moo ko laal jeex na kaasu ataay bi ngay ataay def ci ndox mu sedd ak mu tàng mu ngoog loolu ja xam-xam la beneen bi mooy jigéen ju ëmb ñu des ñu def fibroscopie scanner biir bi loolu loolu du xëy bi ñu ne la yow doom bu góor ngay am loolu xëy bu la loolu du xëy bu mi ngi nii ci am na mi ngi nii dafa am mi ngi nii ci biir bi yaa ngi koy laal waaw léegi yow sa bët moom mënut a yegg ci biir mais ut nga leneen loo xam ne eggal na la fa loolu kay du xëy bu yooyu du xëy bu xam ngeen lan mooy xëy bu mooy nga gis ni rek ku yow de àjjana nga jëm loolu xëy bi la di loolu garaaw na de comme ni ko gars yi defee kan moo la nekk àjjana la jëm ku la ko wax wala fii ñi fi suul ñëpp àjjana lañ jëm loolu garaaw na de ah loolu nit ñi dañ ko war a mooy te ndikku kenn waruta wootewu ci mbir yoo xam ne yàlla rek moo ko xam al imaamu malik imaamu daarul xijri dafa tëdd benn bis mu gént malakal mawt mu ne malakal mawt kañ laay dee malakal mawt ne ko nii rek mu yeew mu ne lii mbaaru juróomi at ah déedéet juróomi weer juróomi at juróomi weer juróomi semaine juróomi bis est-ce que du juróomi minute est-ce que du juróomi seconde mu tiit mu am problème bi seconde yi passé mu ne xanaa ay minute la minute yi passé mu ne xanaa kon ay ay ay heure la heure yi dem mu ne ah xanaa ay semaine la noonu la ko toppee di wër di wër di wër di wër kan moo koy xamal lii lu mu fu mu dem ñooñu ne ko xamuñu ba mu yegg ci benn borom xam-xam bu mag kooku ne ko lii kay mu la wax lu yomb la xamoo ko mu ne ko xaw ma ko te moo ma teree nelaw mu ne ko daf laa wax juróom yii yooyu nga ko laaj li nga ko laaj dafa bokk ci juróom yi mu xamul moom moo nekk ci feewu suratu ah luqmaan ah mokkal nga ko boo ko mokkalee ma jox la montre de montre yi ñëw nañ de ba déglu foofu la commencé foofu la commencé ah aaya yooyu de juróom yooyu de ko mokkal ma jox la montre su may ñëw samedi xaar xaar gars yi su ma Hmm. ba jël kenn wala ma may la ñaari minute ma may la ba tey aywa
إن الله عنده إن الله عنده علم الغيب inna allaha indahu علم الغيب inna allaha indahu Mhm. déet déet xaaral say bi
إن الله عنده علم الغيب Mhm.
وينزل الغيث Mhm.
يعلم ما في الأرحام Mhm.
ما تدري نفس ماذا تكسب غدا Mhm.
وما تدري نفس ما يعلم
mu ne ko juróom yaa ngoog juróom yooyu la yooyu malakal mooti nee na ko yàlla rek moo ko xam ban mooy bu njëkk inna allaha indahu ilmul xayb li kumpa yàlla rek moo ko xam kenn xamu ko toog fi nag naan suba nangam ak ginnaaw suba kër a jërët man waxoon naa mag yi dina dem paleeg te sénégalais yi dañoo dangereux dangereux boo xam dañuy bàyyi ba dara am ñu profité ci waxoon naa ko pour nit ñi ne dëgg la ah wala nga wax rek ah loolu jullit ñi dañ ko moytandiku yàlla rek moo xam kumpa inna allaha indahu ilmul xayb gis nga mu ne alimul xaybi wa shahada fala yujhir ala xaybihi ila man irtada min rasulihi yàlla rek rek rek rek rek moo xam kumpa ku ko neex nag yenn saa yi mu xamal ko ci yonentam yi mu yónni ñaar ban moo ci tegu ma faatihul xayb mu ngoog yàlla nee na caabi kumpa man dong maa ko yore kenn xamu ko kudul man lan moo tegu ci bi aaya ba
ينزل الغيث wa yunazzilu xays yàlla mooy wàcce taw parce que asamaan bi day xiin est ce que Dakar lay taw ah ah yàlla mooy taw fu mu ko neex léeg-léeg nga dem Dakar nga gis mu taa nga ñëw fii doo gis dara nga naan waaw ñu ne la feede daa yendoo taw léeg-léeg nga dugg oto muy génn ci taw di dugg fu tawul nii ci benn tali فدوى رن
ci benn tali billaahi nii nga gis oto bi tooy xepp di génn fu tooyul di dugg nii lu yàlla moo koy def
sans comme fii rek waaw maanaam stade bi fii di taw te suñu koñ bi taw fii di noonu mu nga fu nekk day am yàlla moo koy wane
daaw daaw daaw daaw jéeg un mois ñuy xool taw muy taw fële ñu mënuñu am taw.
gis nga ba ñu jëlee suñuy bagages ne su tawul ba semaine bi ñun dañu ci semaine boobu la ci taw.
ngeen da ngeen dëggoo bëgg a dem boobu la ñu am yoo ëppale ñu jël ñu ñu jiitu.
gis nga loolu nag mbiru yàlla la indahu alxayb wa
يعلم ما في الأرحام wa yaalamu ma fi arham yàlla nee na li ci biir yi maa ko xam ci biir bu gaa yi gëstoo ba xam góor la wala jigéen léeg-léeg nga dem médecin yi ñu ne kii baare nañ ko waaye duñ la wax bis bu muy am doom de duñ la wax heure bu muy am doom de lan lañ la wax baare nañ la yow lëndi ngay am doom ci minuit mukk yàlla moo xam liir bi kañ lay judd fan lay juddoo lu ci tegu wa ya'lamu man wa ya'lamu man arham ah.
wa ma tadri nafsun maadha taksibu ghadan ëllëg looy am yàlla moo ko xam looy am ëllëg yàlla moo ko xam looy nekk ëllëg yàlla moo ko xam yenn saa yi nga gis koo xam ne bi mu nekkee sixième di jàng ba moom entré en sixième COP mu am BFM am na lu mu am na lu muy viser léegi lii laa bëgg a nekk mu dem université jël branche boobu ah dafa deux ans cartouche sànni ko dem nekk ji enseignant fekk ku ko di fekk muy jàngale ah fekk droit la jóge ki def droit xam nga moo ko loon day nekk day enseigné ci loolu ma waxoon la bëgg a nekki mu ngoog mu mujj di jàngale ci loolu la yàlla def yàlla moo xam lépp waaye doomu aadama yi bu ñu bëggee remplacer yàlla problème day am moo tax yonent bi di ñu tere di jéem a jàng xam-xam yu bon yooyu Ibnu Abbas ne yonent bi nee na képp ku ci jéem rek cof tuuti yow de jël nga ci njabar baat bi dañ ko fekk ci alxuraan ci histoire Moussa keroog ba mu àndeek njabootam mu gis safara mu ne leen inni anastu naaran gis naa safara xaar leen ma fii la'alli aatikum minha bi xabas baat baa ngoog bi xabas mooy ak gillet laa leen fay indil ak gillet laa leen fay indil pour lan ngeen niitu wala ngeen jaaru dem ñëwee ba tiim safara si ndeke du safara yàlla daal ne ko yaa Muusa inni ana allah maa yàlla moo tax borom xam ne foofu li tax yàlla def loolu mooy Muusa loolu la aajo woon safara la aajo woon yàlla feeñu ko loolu parce que rapidement day ñëw séen na ko yàlla woowu ko ñëw na parce que loolu la aajo woon mu ngoog kon jàng xam-xam boobu muy mbirum njabar te mu jëm ci loolu nit ñi di def tey loolu dafa xaraam waaw naan nees bi jamono bi lay wàcc wala taw bi heure bi lay ñëw ren taw dina bëri wala ren taw du am wala yow mii ah sa génneel sarax yow mii am na lu ma gis ci yow de yow mii ah nangam nangam yooyu ay feni kesa la loo gis ci yow yow loo gis sa bopp loo gis sa bopp mus naa fekk benn njabarkat ci benn kër ku tàllal sa loxo rek mu ne mu ne ah nangam nangam daal di wax ku tàllal sa loxo rek mu wax ma jaari jàng ayatul kursi sama loxo rek ñëw ko léegi xoolal ma mu xool mu ne yow gisu gisuma dara ma ne ko doo gis parce que ayatul kursi laa ci tufli fii doo fi gis dara noonu la meree jël ay bagage am daal di abale waaw mooy seetkat yi ngeen di gis gisaanekat yi seetkat yi benn façon kese lañ yor man gis naa koo xam ne da ngay déposé liggéey ko parce que bii loolu boo ñëwee da lay seetaale quoi su bàyyi xel parce que man boo ñëwee daf ma laaj su papa nu mu tudd dem ba sa maam nu mu tudd sa kii ma xam ne kii njabarkat la barkat la voilà képp koo dem mu naan la sa papa ak sa yaay ak nangam njabarkat la njabarkat la ginnaaw école sa ginnaaw école jabarkat jabarkat yi ñooy laaj foo juddoo sa tur papa sa tur yaay sa tur maam ñoom ñooy laaj loolu ban xeet nga bokk fan mooy seen dëkk laaj yu bari yooyu jabarkat yi ñoo ko yore mu ngoog ak di sànni cuuraay ci ànd di di di wax baat yoo xam ne déggoo ko jabarkat la ak di bind ci suuf ak di la jox kurus naan la jëlal benn per wala gëmmal nga jël benn per wala gëmmal nga teg sa loxo fii ci téere bi yooyu yëpp ay njabarkat ñoo koy def mbokk yi mu ne yu mel noonu jàng ko dafa xaraam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu koo tere waaw mu ne borom bi subhanahu wa taala wax na su fekkee beneen wàll bi la ci mbirum biddéew yi inna allaha indahu ilmu saa gis nga wa yunazilu xays yàlla nee na moo xam bis pénc kañ la yàlla nee na moo xam kañ la taw di wàcc beneen bi wa ama ma yudriku min tariq al mushahada min ilmi nujum bu fekkee nag ci xam-xam astronomie bi ñuy jàng tey nga xam ne day wax tremblement de terre yi ah nga xam ne ni ko nit ñi jàngee xam temps bi lii lii la lii lii la ñu jàng ko ci ay calcul ci ay espace loolu du xayb amul lenn lu xayb parce que waa ji koy def waxul ak xayb mooy mooy ñëw daf laa ne lii bu lii nekkee bu lii defee bu lii amee lii mooy ñëw kon loolu xayb amu ci amul benn xayb xayb nag mooy wax naa leen sànq moom moom mooy lan bu fekkee yooyu la moom yooyu moom dara nekk ci dafa dagan parce que sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci quran qaala taala wa bi nujumi hum yahtadun yàlla nee na biddéew yi sax dama ko defar pour nit yi di ci orienté wu xam nga am na biddéew yoo xam ne dafay wane penku bi di wane yenn yi di wane sow mu waxaat ci beneen aaya mu ne moom sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa huwa alladi jaala lakum nujuma li tahtadu biha fi zulumati l barr wal bahr man yàlla maa sàkk étoiles yi maa leen defar pour ngeen mën cee jub li tahtadu pour ngeen mën cee jub fi zulumaatil bar ci lëndëmu jéeri ji wal bahr ak ci lëndëmu géej am na biddéew yoo xam ne souvent ñi nekk ci gaal yi biddéew yooyu ñoo leen di oto ñoo leen di orienté di leen won ne tefes gi fii la wala penku bi fii la wala sow gi fii la pour ñu mën a dem naka doon aussi ci àll bi am na nappkat am na rëbbkat yoo xam ne léeg-léeg ñu réer ci àll bi waaye biddéew yooyu ñoo leen di dimbali parce que yàgg yàgg a seetlu yàgg a seetlu dalay dalay may am dalay may xam-xam waaw di seetlu nangam bi nangam bi léeg-léeg boo laajee paa yu njëkk yi amuñu woon yu bari amuñu woon ay busol amuñu woon ay nangam mais boo leen laajee rek ñu wax la Casamance da nga fay dem nga jékki-jékki rek ñu ne dugg leen ci biir fi ngeen toog nii ci digg bi ñu lal basang yi wala ñuy waaj a samp baas bi nga jég benn paa bu ñëw rek ne lu ngeen di bëgg a def ñu ne dañuy waaj a waxtaan fii mu ne fii tey waxtaan du am ñu ne lu tax mu ne toobaa ngi nii mi ngi nii mi ngi nii ñu ne ah balaa ñuy dajale waat seen seen baas yi ndox mi ne jir billaahi wallaahi nga xam ne kon loolu xam nga du xayb parce que ñoom yàgg nañ xam nañ ko mi ngi nii di ñëw dañ la koy wax waaw léeg-léeg nga dox ngay dox nii di dem fem jaar rek ñu ne léegi di ñëw de taw la nga ni lan ni naan ne fu naan nii yow allo ñu ne la mi ngi nii di ñëw balaa ngay dellu kër gi nga jóge woon mu taw wala ngay génn ñu ne lay jëlal pression lu xew ñu ne la lii day taw de xam nga loolu du xayb waaw loolu ñoom dañ ko yàgg dund ba pare xam ko mu ngoog am na benn waay boo xamante ne day gas teen bu ñëwee boo ko ne defal fii teen bi daana la fi bëriwul ndox nga ne ko ah mu ne la waa jox ma weñ nga jox ko day def fi benn def fi benn samp leen suuf su nee nii nii nii nii nii nii nii ne nañ ko gas fii fii moo ëpp ndox xoolal loolu loolu du xëy ba dafa am loo xam ne nit da koy jàng ci wàllu àdduna mu xam ne lii lii la ñu ngi mel ne un plus un rek lu ngeen wax deux kese la munoo muus ak waane ba machine bi du génne deux wala soo nee machine bi du génne deux da nga yàq machine bi wala waaye deux rek mooy génn loolu moom mooy li am Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu qaala taallamu min annaj min annujumi ma taarifuna bihi alqibla Omar ibnu Xataab doon na soññ gaa yi ne leen jàng leen ci xam-xamu biddéew yi lu ngeen xamee xibla gi wa tariq ak lu ngeen xamee yoon wi gis nga kon Omar soññoon na démb jullit ñi ñu jàng astronomie pour xam lan seen xibla bu ñuy julli fan la nekk waaye ñu xam seeni yoon pour bu ñuy tukki bu ñu amee soxla fenn ñu bañ a réer kon mbokk jullit yi lii lenn la ci dars yi ñu doon indi tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh